asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu bokk di nuyu bokk yi ñuy teewlu yëpp ci biir réew ak ci bitim réew ci turu jëriñ Cheikh Fall ji ci Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda ñu ñaan yàlla sunu borom yàqal ak dundam lool te wéral ay cëram di jottali ab nuyuwam moom sëriñam di faal ak ziyaaram mu jëm si jëwriñam ji di Cheikh Modou Mountakha mu jëwriñu Xaadim Rasuul sëriñ bi di ko jottali ab ziyaaram waaye di ko ñaanal suñ borom yàggal ak dundam lool wéeral ay cëram gannaaw li mu am jëfal ko sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lépp mu am kàttanu mën koo jëf dànd ko taalibe yi sëñ wax ne mi ngi jottali am nuyoo ak siyaar it mu jëm si mboolem ñoom ñi nga xam ne ñoom la Cheikh Modou Mountakha jaboote muy njabootu sëñ Tuubaa bi li dale si kër Cheikh Modou Moustapha Mbacké ba si kër Cheikh Modou Mourtada sëriñ bi di leen jottali ab nuyoom ak ziyaaram di leen ñaanal it yàlla suñu borom yàggal seen i te wéral seen i cër sëriñ bi wax ne ñu jottali ko ab nuyoo nag mu jëm si mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñi nga te ñëpp tey si jotaay bii. waaye muy tàmbalee nuyu bi rek ci jëriñ yi nga xam ne ñoo jëriñu kër buntu kër maam Seere Fall yi ñu ngi ko nga xam ne bokk ak ñoom Cheikh Ibra mu nawloo leen lool fonk leen lool waaye ñoom it ñu jox ko cër boo xam ne bëggunoo nawlante ak moom dana bëgg rek di ay taalibe mu leen di digal ñu di ko def leen ni ma ko waxee rek buñ ko Cheikh Mourou Moustapha ba buntu kër Maam Saliou Fall ñoom ñëpp teew nañ fi ak seenu njaboot ñi nga xam ne teew ñëpp yabal si nañ ñësës si ñoom ñu wuy si woote bi nga xam ne sëriñ bi woote na ñu di sant mbooleem ñi nga xam ne Cheikh Ibra dafa gërëm seen maam wala mu gërëm seen wajur daf toog leen ni mbooloo nu ànd di liggéeyu maam Cheikh Ibrahima bu ñu ko waxee mooy ñi ñu tuddee seex yi sëriñ baa ngi leen di sant di leen nuyu te di leen gërëm bu ma tuddee bu ñu kër maam Cheikh Ibrahima damay jiital kër maam Saliou Fall ñu daaru xafoor bokk ak Cheikh Fall lépp waaye naka jekk nag mu ànd ak moom lépp seen njaboot a ngi fi kenn jiituwu leen ci liggéeyu Cheikh Fall bi sëriñ baa ngi leen di jottali am ak i cant ak i ngërëm di jottali nuyoo sëriñ bi mu jëm si mboolem taalibe yi képp koo xam ne rek sa yaakaar génnul sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima nga xam ne danoo bokk tool bi nga xam ne ñun ñëpp si la ñuy bay muy toolu ndigal di toolu maam Cheikh Fall sëriñ bi ne mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm sëriñ bi wax nag ne kàddu yi moom ni mu koy tàmbalee mooy xanaa di tuub ak di tuubal koo xam ne kii nekk na si dëkk bii mbaa nga nekk feneen te yéew Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima te def wala nga wax si loo yëg wala loo yëgut loo xam ne wuute naa li bëggu Serigne Touba di Cheikh Modou Mountakha sëñ bi ne mi ngi wàcce boppam ba suuf di tuubal Cheikh Modou Mountakha waaye di tuubal murid yépp nag lépp loo xam nii rek def nañ ko ci sunu maxati bi nee na mu koy tuubal jëm ñu Sëñ Touba bii di Cheikh Modou waaye di tuubal murid yépp nag di xamal sëriñ bi ne ko dañu delloo si rek wax ji Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké waxoon ne ñàkk a mënal suñu bopp dara ñooñu indi si sëriñ bi te mënu booleeg moom buñ mënaloon suñu bopp dara wut suñu dara si sëriñ bi waaye lottu gu ñu lottu si suñu bopp si lu ñu mënta ñàkk te mënuñu koo defal suñu bopp moo ñu indi fi sëriñ bi te moo ñu fi bàyyi matadi googu nag fi lañ sukkandiku nag di tuubal sëriñ bi di yaakaar mu jéggal ñu nag ndax xolam watu jóg mukk dañ la ko yëkkati di bàyyi ko ci ñi nga xam ne dañoo yaakaar sëñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ndax la mu jaayanteeg moom sore na ak loolu lool kon sëriñ bi nee na mu ngi tuub di tuubal Cheikh Mouhamadou Mountakha mboolem murid yi nga xam ne ñu xam ko ak ñu xamut def nañ mbaa nu jëf mbaa nu wax lu wuuteeg li nga xam ne mooy ak bëggam moom Cheikh Mouhamadou Mountakha mii sëñ Touba Xaadimu Rasuul wax nañ ni jotaay bii dafay tàbbi rek. si kàddu yoo xam ne si kàddu yoo xam ne ah Serigne Touba waxoon na ko njaboot gi mu mel ne sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla na ko yàlla fayal mas na koo nettali ñun ñëpp ñu di ko dégg moom Serigne Abdou Lahad Mbacké nee na sëriñ tubaa daan leen digal ni leen saa bu ngeen demee ba melow àdduna bëgg leen a jañ si boppam yeen na ngeen delloo seen bopp si yàlla si saa si te bu leen ko waaj mu mel ne jataay bii day dugg si waxi sëñ Abdou Lahad joojee sëñ Touba joojee nga xam ne moom la waxoon ak njabootam te sëñ Abdou Lahad nettali nañu ndax nun ay murit lañ li nu def ay murit it mooy danoo jaayante ak sëriñ Touba jox ko suñu bopp na nga xam ne noonu la ko maam Cheikh Ibrahima Fall jàngalee woon defoon ko ñu di ko si roy mu wax ne loo xam ne boo ko jàppagu tuddagu am murit boo ko bàyyee dootoo tudd ab murit kon ku ñuy wax murit rek jëf jooj yi ak melokaan wii moo tax ñu di la tudde murit sëriñ wax nag ne nun murit li nu tënk lenn rekk la muy benn baat muy ndigal ndax kenn ku ne su nun la nga jaayanteeg sëriñ bi mooy da ko wax ne ko loo ma digal dinaa ko def waaye loo ma tere dinaa ko bàyyi sëriñ bi dafa si Abdoulaye dafa waxoon ne sëriñ Tuubaa la nu jaayanteel te Sëriñ Tuubaa bi ñu jaayanteel ku jaayanteeg moom jaayante nga ak rasulullahi te ku jaayanteeg rasulullahi jaayante nga ak yàlla suñu borom loola moo nu boole moo nu def nuy ay murid ndax sunu jaamu yàlla ak sunu topp yàlla lépp dafa dellu si liggéeyal Sëriñ Tuubaa te gannaaw sunu jaamu yàlla mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa te liggéeyal Sëriñ Tuubaa Seex Rafaal moo nu ko jàngal kon la la ñuy mooy doxin wa nga xam ne moom la ñu Seex Rafaal woon te jàngal nu ko mooy naka jëkk nu sax si ndigal yi nga xam ne mu ngi bàyyi ko ko sëñ Tuubaa di ñëw ko Seera Faal wala di ñëw si murit yi nga xam ne murit genn bëgg rek la muy ndigal liy bàyyi ko sëñ Tuubaa di agsi fi moom waxtu ko noppee jëfe ni ko sëriñ Fallu mii doon nettalee saa su ne ci jataay boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké amoon na ko ak sëriñ Modou Fallu ba sëñ Abdoul Ahad wax ni ko sunu ñaari kër yi mbañ seeni mbañ mooy kër Cheikh Fall mbañam mooy ndigal jóge kër Sëñ tubaa egsi fi te jëfewuñ ko wala nu delloo waaye liñ mbañum kër Sëñ Touba mooy ñakk a digle yaari mbañ yooyu nag waruñu see tabbi fenn wala fa suñu yéene tabbi si nun ñi nga xam ne ñoo féete kër maam Cheikh Ibrahima Fall li nu jaayanteeg Cheikh mooy lépp lu Sëriñ Touba digal danañ ko def loolu nag mooy sababu. sëriñ bii nga xam ne mooy sëñ Amdi Fall Modou Mbenda waxtu bu jotee ndigal mu bàyyi ko si sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha day daal di def yitteem si nu daal di jëfe ndigal li rek na nga xam ne noonu la ko Cheikh Modou Mountakha bëggee na nga ni démb nag walla démb si gannaaw wetu tisbaar Cheikh Modou Mountakha da ko woolu bi mu ko wooyee xamal ko ne ko naka jëkk yoon wii li nga xam ne moo doon ñag bi ak daa ko waggar weesuwul maam Cheikh Ibrahima kon nag liggéey boobu taxawaay ba Cheikh Ibrahima amoon sa wetu sëñ Touba sa jamonoy sëñ Touba Xaadimu Rasuul taxawaay boobu rek laa yittewoo njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi am ko si wetu njabatu sëñ Touba gi daa koy xamal ne ko liggéey boobu lépp nag ma teg ko ci sa loxo maa ngi koy fedd liwaat bu baax di la jox ndigal lépp lu jëm ci luy waggar Touba lépp lu jëm ci luy sàmm war may tuuba ak njabootu sëñ Touba gi maa ngi lay sant nga laabirante si nga waxtaan ci ak ñii nga bokkal sëñ Touba ngir nu sàmm ko te fonk ko ndax naka jëkk sëñ Touba Cheikh Ibrahima Fall mooy Baabul Muridiin kon nag Cheikh Ibrahima Fall moo mën ne jàngale ak taalibe Cheikh Ibrahima waxtu wu demee ba jamono ji jaxasoo moom it la war mu soññee nag. fàttaliwaat delloosiwaat taalibe yi si li nga xam ne moo nu fi indi te bàyyi nu fi muy yaakaar sëriñ bi rek ak nangu ko liggéey ndax sunu liggéey li muy rëy rëy weesuut bëgg gi nu bëgg sëriñ Tuubaa ba yemale wuñ ko dara te loolu si la liggéey bii nu koy liggéeyal foofu rek la mën lañ ko mën a moo mën a doon cëslaayam muy liggéey boo xam ne duñ si sonn duñu tàyyi duñu toqi duñu deltu ginnaaw lii sunu bëgg mooy jox ko sunu lépp ndax ki jaayante sa jëmm kon la aju sa jëmm ja taxul nuy wax kon sëriñ bi lañu jaayanteel jox ko sunu lépp sëriñ bi wax ko ne ko lii nga xam ne mooy jëmmi Touba lii nga xam ne mooy jëmmi yoon wi taxawaay ba si Cheikh Rafal amoon dara soppiku si dama koy feddali rek si yéen ñi nga xam ne yéenay njabootug maam Cheikh Rafal bëgg ngeen waxtaane ko seet nu ngeen def ba mën a waggar ba mën a sàmm ba mën a taxawu war ma ji nga xam ne warloo nañ ko ak sëñ Tuubaa si dëkkam bi ak si teel bi nii ndax sëriñ bi nett la na ni sëñ Tuubaa day ñett lañ xamoon mu ñor ko amatum ñeenteel te ñett yooyu yëpp Cheikh Fall liggéey na si liggéey bu am solo boo xam ne ndono li nii rekk la wax na bi si jiitu dafa ni mooy taalibe yi ko yàlla booleel mu nee na comme si masaa wéetal wan na la sa bopp wan la si boppam loo xam ne bëggoo di sa moroom loolu laa waral doxin wii nga xam ne wala kàddu yi ñuy yëkkati danañ agsi sax si bunt boobu yi nga xam ne sëriñ bi sant nañ ko ten war koo li muy mboolem buntu kër ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Tuubaa te nga xam ne day seen mbokkum taalibe wala daa jàppe boppam seen mbokkum taalibe sañal laa laabirante ak ñoom ci lépp loo xam ne luy doxal yoon wi la waaye taalibe yooyu kër goo dugg tey la fay dox nañu xam ne loole liggéey sëñ Touba ndax buñ demee ba benn taalibe buggul di moroomam te la ko sëñ Touba woon si boppam rekk a tax kon kenn ku ne xam ne ni sëñ Touba ab liggéeyam si taalibe yi kenn mënu koo natt wax na li si dolliku muy alxuraan alxuraan moom wax na ni ba ba mu xamee yàlla suñu borom wax ni keroog yomal xiyaam kenn ku ne da nga génne sa pagg te fi àddina jóor nit ak jinne ak ko teg seen bët nee na keroog la def alxuraan muy pagg téefam moom mi jóge si yàlla jëm si rusullaahi te jaddut fenn boo ñëwee si dëkk bii li fi nekk si ay jumaa li fi nekk si ay jàkka li fi nekk ci ay daara yuy jàng yuy jàngale alxuraan yaakaar naa amul fenn fu foo xamante ni fi mën nañ koo méngaleeg moom kon liggéeyub sëñ Tuubaa si alxuraan ñun ñëpp teg nañ si sunu bët nee bi si dellu ko nag mooy Tuubaa gii nga xam ne bi mu ko sancee juróom-ñaari at rek la fi def dellusiwaatu fi ba nu mu wujjee boromam waaye nee na diiru li muy ne si àll bi mu ngi way Tuubaa ak di ko tagg lu mu amit fii la ko fii la ko dëyal waaye sëñ bi muy wax si Tuubaa dafa ne arasahullah waxul yàlla dina ko aar waxul yàlla na ko yàlla aar dana yàlla aar na ko ndax Tuubaa doonut loo xam ne dañ ko koo may walla nu sarax ko ko dañ ko koo jaay si njëg gu lew doom ndëggu gu mat sëkk kenn ku ne déglu na bi nu sëriñ bi nettali yoonu géej gi wax na ni biñ ko wanee nattu yi won ko ko xamal ko ne ko nii dani man daal nañ ma tee roogi bu fi roogi desee daal loolu nattu yi lu mu tiis tiis dinaa ko yenu ba àggale ko ñu ne ko kenn mësu koo yóbbu mu ne man sama jom dékku na ko bu ma faatuwut sama jom dékku na ko nu xam ne sëñ Tuubaa kon bi muy dem jom dong la demee waaye tey jii man mii boo ma kaata woon ni ma koy yëgee noonu la sëñ Tuubaa doon yëgee nattu yi ñu ko doon teg waaye jom ji nga xam ne moom la diggee ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko yóbbu woon ba mosul ne eh musul deltu ginnaaw mësta rëccu mësta salit ñu teqale ko ak li mu gën a bëgg muy ak njabootam teqale ko ak taalibeem yóbbu ko boole ko ñoo xam ne jënn yitte lañ am muy sànk ko muy lor ko muy sànk ko waaye lépp mu gànnaayoo jomam rek jom jooju nga xam ne moom la liggéeyoon ak rasulullahi te la mu jaayante woon weesu wut dëkk bii di tuubaa ndax kenn ku ne xam na ni ba mu jógee Daaru Salaam fii la ñëw mu mel ne la mu doon sàkku wala la mu doon wër fii la ko gisee ba mu jaral ko mu nangu jaayante googu diggam ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñu xañ ko lépp ne ko fii ak ngay wuy ji fii ak ngay jaxajoo ak sa borom dootoo fii ak bànneex nattu bu buñ la teg danañ la teg ëllëg natt doo ko tax a fàtte te sañoo ne eh sañoo salit sañoo deltu ginnaaw te amul lenn luñ lay dimbalee lu dul nattu bu ñëw dinañ leen nattu sàngam dana ñëw suba ñu boole koog ñu mën a nattu ñoo xam ne daa mel ni amuñu ab xol noo xam ne jënn yitte lañ amoon muy faagaagal ko muy muy muy reyee li nga xam ne moo ko yëkkati woon ndax dañoo wax ni daa wax ni lii mu song kenn ku ko mës a song ba àggale ko amut moom mu ñëw ni dana ko song bu àggale ko ñee taxaw fee ne du am yor seeni matuwaay yor seeni jumtuwaay yor seeni pexe waaye jom ak ngor mu yóbbu sëñ Tuubaa ba mu dem ba dellu si liggéey liggéey bi anam yoo xam ne faw xon a njort ki ko ko doon liggéeyloo wala ki taxoon mu jóg ba mu ñëw mu fayee ko nag dëkk bii di Touba sëñ Touba ñëw dëkk dër ndax firnde je weesuwut bi muy jaxasoog sunu borom njaareem la amee waaye lam santoon Cheikh Modou Moussa Mbacke dañu ko woon na ma yóbbu Touba na nga samp jumaa ji na jumaa ji taxaw na yoon wi taxaw ne ko nag lii ma leen sant su ngeen ko defut yàlla dina wàcce yeneen mbëndam ñu def ko ndax du lu mën a ñàkk Cheikh Modou Moussa teg ngàngam ba indi suñ Touba Touba jébbal ko Touba mu ne fii si jumaa ji buñ doon wër sëñ Touba tey jumaa ji rek la ñu jubal jëm sëriñ sëriñ Modou Moussa taxaw ba ànd ak maam Cheikh Rafal ba yoon wi taxaw loola Cheikh Rafal la ko ko waxoon am na ndaje mu am njaareem ba tubaab bi toogee ab diir amuñu interlocuteur xamuñu kan moo jiite yoonu murit ndax bi sëñ bi demee ñëpp nee nañ tekk ndax sëñ bi dafa doon rasulullahi ba mu àgg te li nga xam ne moo xew ginnaaw rasulullahi mënutoon a xew ginnaaw sëñ Tuubaa muy ak jaaxle si ñëpp. ba nasaraan yi toogee ab diir xamuñu ku ñuy waxal xamuñu kan moo jiite yoon wi ñu woote ab daje wutub siis teg bu kenn toogul lañ jàppoon mooy siis boobee waxtu wuñ tànnee ki war a jiite yoon wi dañ naan ko jugal toog si siis bi bañ njëkkee ba war a tàmbali tubaab yi ñoo ne gis am na ku ñëwut ñu ne ku mu ñu ne Cheikh Ibra Fall Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacké moo yónni ndaw kër Cheikh mu wooyi Baye Cheikh Ibra ba mu ñëwee dikk ba jàkkaarloog ñoom da leen a xool ba seen leen waaxu ŋàbb addiyam wàcce kaala gim kaala woon ak laafa mi dikk jubal ba fekk Cheikh Modou Moustapha fi mu toog mu sukk jox ko loxo joxoñ ko toogu ko ne ko toogugee boo si toogul kenn du si toog waxtaan woowu foofu la yam àggut boo demee ci kàggu yi ñuy gëstoo di nga gis ñu def ko fa te Cheikh Fall fekkiwul toogu ga lu taxoon nu teg ko fa fekkiwul it xamutoon it lu taxoon waxuñu ko lu taxoon nu woote jataay bi waaye ba mu joxee loxo Cheikh Mawone Moussa daa geesu joxoñ ko toogu ga ne ko toogu gii boo si toogul kenn du si toog keroog la tubaab yi am interlocuteur muy Cheikh Mawone Moussa mu donnu Serigne Touba Khadimou Rassoul lu kenn xalaatul woon ci àddina mu ànd ak Cheikh Mawone Moussa nag si la ko Serigne Touba digaloon mooy na nga fexe ba jumaa ji taxaw waaye na nga fexe ba yoon wi taxaw looloo fi bàyyi Cheikh Rafal ñetti at yi mu wutu Serigne Touba si kaw suuf. samp na yoon wi ba yoon wi taxaw lu xam ne Cheikh Modou Moussa moo jiitu te ginnaaw moom ku fi mag si yoon wi yaay doon sëñ Touba lii ñëpp sëñ Touba rek ba àddinay tukki loola liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall waaye taxaw naa naat ba ndigalul jumaa ji nga xam ne moom la sëñ Touba digle woon taxaw naat ba jumaa ji si ñu ñu tàmbali ko fondement ko liggéey ko bañ xam ne jumaa ji dootu taxaw liggéey bi dootu taxaw ndax murid yi booba sonde nañ leen bañ am pas li sëñ Touba bëgg faaw nu def ko. Cheikh Fall jàngalewaat fàttaliwaat culture addiye xam ne li nu booleek sëriñ bi mooy dañ ne ku jaay lëf te yàgg yaakaar njëgg loolu génn na sa loxo suñu laata ko xool nu xam ne li nu booleeg sëriñ bi ku joxe sa bopp desiwoo dara li si jiitu mooy sa da ngay joxe sa sa xol joxe sa alal joxe sa doole joxe sa lépp loola mooy tax lu si Tuubaa bëgg am jumaa ji ay malaakat sampuñu ko jumaa ji ay jinne taxawuluñ ko jumaa ji murit yee ko taxawal si njàngale mu maam Cheikh Ibrahima jàngale ni ñu war a topp sëñ Tuubaa te kuy wër sëñ Tuubaa jumaa ji rek ngay dëgmal jëm fa jumaa ji nekk fii si digg dëkk bi muy foo xam ne yàggu dara boo weesoo jumaa ji rek ab diir ñi ko fekk fii bari nañ boo ko weesoo ab diggante bu gàtt daal di dugg si àll bi nu dem ba nga mel di daw ay kilomètres te doo jeexal dëkk loolu suñ nangu ko suñ borom nangul sëñ Tuubaa moo waral loole kon Touba gi day dëkk boo xam ne moom la sunu borom fayee sëñ Touba li gën a rëy li sunu borom fayee sëñ Touba mooy dëkk bii sëñ Touba àgg si rëdd suuf sii ne pepp suuf yi sax dañuy ràmm fu nit faatoo ñu gàddu indi Touba kon sunu yaakaar yaakaar yi murit bu mën a doon si àddina mën naa béréngu di béréngu waaye bu agsee si sëñ Touba rek day taxaw benn murit bu sa yaakaar génn sëñ Touba ci kaw àddina gii ngay dox ak ëllëg boo jógee. benn murit bu sa yaakaar génn sëñ tubaa amul gannaaw suñu yaakaar génn sëñ tubaa nag te li nu diggeek moom mooy yaakaar ko di ko liggéeyal te yàlla tax jox ko suñu bopp ak suñu lépp war nañu saa su ne nag nuy dellusiwaat nag si sunum xel si li nu boole ak moom addina nag moo baaxoon nu dem ba yàgg dara këf nu nu dem waaye li nu war nun murit mooy waxtu wu ne nuy def la sëñ bi digle woon dimbalante si aw aw yiw ak lu baax te bañ a dimbalante si luy noonale wala luy sorale ay xol mooy jàppante rek mooy fàttaliku li nu boole muy sëñ tubaa amuñ lu moom sëriñ bi wax nag ne Cheikh Fall fa mu ne woon ma nga fa rek fa la ak njabootam ne nee na Cheikh Fall mës ta bëgg dara mës ta soxla dara daa waxoon sëñ Touba ne ko féetal ak yàlla yow mi ko xam rek man ma féete ak yow man mi la xam nee na nag moom si loolu rek la bëgg sax si la bëgg a wéy amutu bëgg amul lu muy sàkku amut lu muy wut lu dul bëgguk Cheikh Modou Mountakha bi fii sëñ joxuñu dara wóolu dara soxlawul dara lii ak bëggam daal mooy lépp lu ko sëñ Muntaxa digal fas na yéene ànd ko ak njabootu maam Cheikh Fall ñu jëf ko na ko sëñ sëñ Muntaxa diglee nee na la mooy ak bëggam loolee nag la ni woon nu woo njabootu Cheikh Fall gépp nu daje ñu fàttalente ko si suñu biir xam ne ndigal li ñëw si moom mooy dëkk bii di Touba Cheikh Modou Muntaxa wax na ko ne ko war ma ji ak waggar gi lépp teg na ko si loxoy maam Cheikh Ibrahima kon lu si des nun la des waaye desul bu kon lu si des rek su nun la des waaye desatul si sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha loolu la sëñ bi ne woon da koy da koy séddoo ak yéen ñu ngi ko bokkal ndax ndigal lu jóge sëñ Touba la jaar fi moom muy jëwriñu Cheikh Rafal sunu borom teg ko seen kanam kon lépp lu jóge sëñ tubaa ak si fi moom ni mu baaxoo rek dana ko sédd bokk ak yéen ñëpp. li si topp nag mooy seet yoon nuy jaar ba li sëñ bi bëgg mu am ko loola moom si jëwriñ yi nga xam ne ñoom la tànn fa lay fa lay fa lay sosoo fa lay tàmbalee waaye li am solo daal mooy li ko sëriñ bi digal la bëggoon mu jëm si mbooleem ñi mu bokkal Cheikh waaye nag muy dolli nag ab soññi ak fàttali si ñi bokkal sëñ Touba ñi mu ndax kenn ku ne ba nga demee ba xam ne jaayante moo fi ne da ngaa jaayante ñaar nga jaayante sa dund wala sa deret wala sa cër wala loo am nga jaayante ko sëñ Touba sukk yaakaar ko jox ko sa bopp àddina ak àllaaxira loolee tàmbalee si njabootu boppam bi moom sëñ Touba tàmbalee si Cheikh Modou saa Mbacké mi ko jëkk wuutu dafa jaayante ak moom sëñ Fallu dafa jaayante ak moom ba si Cheikh Modou Moutala ñëpp jaayante ak sëñ Touba tàmbalee si mag ñi nga xam ne nag danoo bokkoon ak sëñ Touba ba noppi wëlbatiku nag am ngorug yaakaar ko topp ko nag muy ñoo xam ne nawloo wuñ sëñ tubaa danoo yaakaar sëñ tubaa dañ koo gëm dañ koy liggéey muy ñi nga xam ne danoo àndoon ak sëñ tubaa gore lool di ay rakkam di ay ay ay jarbaatam wala muy ay bokkam kenn ku si nekk cër ba nga am nga jaay ko jënd ko ak ñoo ñooñee ñëpp sëriñ bi nee na ay bokki taalibeem lañ ay sangam lañ ay kilifaam lañ mu ngi leen di fàttali boppam di ko fàttali ñoom liy bëggug sëñ Tuubaa bi ñun ñëpp nu ànd jàpp si ba baatub sëñ Tuubaa bii nu waggar ko ko ba bu ko kenn suufeel ndax sëriñ bi nee na waxtu wu nu àggee si suufeel baatub Seex Moodu Muntaxaa wala nu woyefal baatub Seex Moodu Muntaxaa walla ñu seetaan ku koy woyefal wa ku koy suufeel nee na nun defatuñ dara si àddina bépp murit bu mën a àgg si seetaan liy raam dugg si ñag bi ñu dem ba woyefal sëñ tubaa woyefal baatub sëñ Touba woyefal kàddug Cheikh Modou xaar waxtu wuñ sa àggee rek defatum dara si kaw suuf ñun ñëpp baatub sëñ Touba bi rek moo la fi bàyyi kenn ku ne mooy sa yaakaar addina te mooy sa yaakaar àllaaxira sëriñ bi kon ne mi ngi fàttali boppam di fàttali nun taalibe bi yëpp ñu xam ne lenn rek la ñu am lu mënta ñàkk mooy ñu waggar baatub sëñ tubaa bi naka jëkk nag looloo fi ma sa am mboolem ko mas a wuutu sëñ Touba. benn baat boobu rek a fi daa am su waxee jibee kenn dootu wax suñu àggee ba Sëñ Tuubaa bu waxee nag nu di si teg baat te wala ña say teg baat sax dañuy tuddoo ay murit su boobaa war na noo soññente nag te defaraat suñuy toogaay sëriñ bi wax ne nañ fàttalente loola nañ ci labirante nu xam ne mën luñ suñ bopp dara fii dara fii nu ne asamaak fee nga xam ni fa lañ jëm foofee nag nga xam ne ku mu neex nga xëy yëngal say mbagg dara dalu la nga ko dem doxi sa soxla ñibbisi waaye dana àgg bis boo xamante ni bii waxtu woo xam ne bii kenn rek nga yaakaar mu fekkal fa nga ne muy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul loolu yi nag dañ ne ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la kon nee na sëriñ baa ngi soññi suñu bokk yëpp ñu delloo si waat suñu xel yi te xam ne dëkk bii nit ñi dañ daa jóge fu ne si àddina ñëw di fi wut si diine di fi wuti islam Touba du dëkkub commerce Touba du dëkkub tuubaa Touba dëkkub diine la des fi ñëw defaroo fi waaye suñu àggee ba boo fi ñëwee wala si nga fiy defaroo leneen ngay jël loola nee na nañ ko moytu buñ fa àgg mukk sedd na sëñ baa ngi soññi ñëpp nag ñun taalib yi nga xam ne yaakaaru lu seer faal nag sëriñ bi nee na nu daal jaaju nag gannaaw ndigal dong la ñuy déglu. ndigal jóge na si sëñ Touba ñëw kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndax sëñ Mountakha moom sëñam di lay jox ndigal sëñam di jox njabootam gii ndigal ñoom nag li ñu wax mooy ndigal li agsi na te fas nañ ko yéene jëfee ni nga xam ne noonu la tàmbalee woon gannaaw ba nu sëriñ bi sante woon liggéey bii ko jiitu te ñu nekk ci ba tey mooy buntu kër yëpp àndoon nañ gisoon nañ ko si marché bi. gisoon nañ ko ci corniche bi ak yeneen liggéey yi fi jaar ñuy xamal mbooloo mi ne sëriñ bi li mu bëggoon mooy njabootu Seere Fall gépp jaajuwaat nag te jekkaat te xam ni ndigal li moom mi ngi fi woon màggatul nag waaye sëriñ bi yeesalaat na ko waaye sëriñ bi yokkaat na ko nag nu xam ne nun ñépp nag danoo war a góorgóorlu jaaju te teewlu sëriñ ni nga xam ne noonu lañ koy liggéeyee nag sëriñ bi wax na ne des nañ dajewaat daje yoo xam ne danañ tegaat yoon wi nga xam ne yoon woowu lañu fas yéenee jaar ngir li sëñ Tuubaa bëgg si dëkk bi mu am ko ndax loolu mu ne su ko tënk si si si jataay bii nga xam ne si la ñu nekk waaye képp koo xam ne daal yaa ngi si dëkk tubaab bii bu fekkee ni tënkuwoo si lii nga xam ne mooy bëgguk sëriñ bi ni ko sëriñ bi bëggee na yëg ni njabootu Cheikh Fall jot nañ ndigal ci fexe ba képp ku si tënkuwut danañ fexe ba nga tënku si maa nga seet weneen yoon woo jaar loolu na ko ñëpp dégg buñ nee nag ku tënkuwut si ndigal li kenn ku ne xam nga sa bopp ndax kàddu gi yaakaar naa dana egg fépp incha allah kon nu xam ne waaw sëriñ bi sëriñ Saliou nee na Baye Fall yi am na ndigalul jot nañu ndigalul yor jot nañu ndigalul yor dëkk ci aar ko si li fi wërta am du fi am kon loolu na ko ñëpp xam nee na dëkk bi teg nañ ko suñuy loxo waaye li sëriñ bi bëgg si dëkk bi nee na dañoo bëgg moom koo xam ne kii mën nga ko koo xam ne mën nga ko nga nekk nga nekk si koo xam ne kii mënoo ko koo xam ne mënoo ko la ñuy aaye ngay bàyyi ko kër ga ngay bàyyi ko kër ga ngay bàyyi ko kilifa ga fa ne kilifa gaa fa ne dana ñëw ba ci moom dana ñëw ba fi moom waxtaan ak moom waxtaan ak moom ba xam kii li muy def moo ko ko digal ba xam kii li muy def moo ko ko digal wala yëg na ko moom wala yëgu ko wala yëg na ko wala yëgu ko bala ñu saa def dara bala ñu saa def dara ndax damaa defe ne ku fi ne ndax sëñ yu nee na dafa defe ne ku fi ne bay tax ngay def ay manifestation yu kenn xamut waaw baytaan ngay def kenn xamul rek. ñooñee koy def ci kër la ñu bàyyi ko. nee ñi koy def ñëpp si kër la bàyyi ko. kër yooyee nag. kër yooyee nag. dañuy fexe ba xam seeni i dañuy fexe ba xam seen borom. dem wax ak ñoom. dem wax ak ñoom. dëkk bi nag. nee na dëkk bi. li fi ne bari. li fi ne dafa bari. dafay am fi ne ñoo xam ne ñii nii. dafay am ñoo xam ne nii. bokk ñoo nun. bokk ñoom nun. nu bokk ñoom nun pas-pas nu nu jàppee dëkk bi. am ñoo xam ne ñii dafa am ñoo xam ne. commerce leen fi indi. ñu leen fi indi. waaye sëriñ waaye sëriñ bi indi wu leen defee ne ñi mel noonu rek. dafa defee ne ñi mel noonu. ñooy def lu mel ne li def lu mel ne li fi waaye koo xam ne kii fii la say wajur juddoo. waaye koo xam ne kii fii la say wajur juddoo. ñu jure la fi ñu jure la nga màgg fi yaroo fi nga màgg fi yaroo fi. waroo ñeme loolu waroo ñeme loolu. waaw ñu ko defaat waaw sëriñ bi wax na ne su ko defee lii tam bañ a doon yàgg lii du doon lu yàgg de ndax dëkk bi kat ndax dëkk bi réew mi réew mi dafa yëngu de dafa yëngu te ñuy def lii kat te ñoo def defaat leneen mën nañoo def leneen suñuy jéego daal suñuy jéego bu nu ko diibal bu nu ko diibal ci li sëriñ bi bëgg ci li sëriñ bi ci dëkk bi ci dëkk bi dëkk bi daal nañ fexe ba. nee na dëkk bi nañ fexe ba. li sëriñ bi bëgg. li sëriñ bi bëgg rek. defal ko ko fi moo fi am ñu defal ko ko. loolu rek la loolu rek waaye nag bu mu yàgg. waaye nag bu mu yàgg. waaw jërëjëf sëñ bu yàggee kat leen mën naa xew. nee na bu yàggee leen mën naa xew. sëñ Ba lay gërëm bu baax di leen jaajëfal ci kàddu yi. kon Cheikh Falilou Fall nee na ci kàddu Serigne Cheikh Fall. moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng mii toog nga xam ni mooy jëwriñu Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall xam ni kàddu gii Serigne Daam Soodo yoroon di wax ci loxol sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng la jaar waaye sëriñ Daam jottale ko nag mboolem kilifa yëpp waaye jottali wi day sëñ daam mat na lool rafet na lool sëriñ Fallou nee na jot na sëkk nag waaye mbooloo mi nag daa mel ni li ëpp daje nan fi nee kër Cheikh Ibra Fall sa maam gii daa mel ni ñëpp teew nañ fi ñoom ñëpp maas nañ dégg ndigal li nag fas nañ ko yéene it jëfe ko waaye kenn ku nekk nag daje woon nan ndaje mu mel nii baa ndaje mu ko jige sàkkoon ay ndaw sàkkoon nan ay ndaw ci kër gu nekk ci kër sàkk ndaw indi sàkk ndaw indi ko fi ndaw yooye ba tey ñi ngi fi ndaw yooye nag dañ leen a yokk te jàppale leen te ànd ak ñoom ci liggéey bi fas yéene daal lii mu sëñ Muntaxa Mbàkke bëgg nga xam ne mooy bëggu sëriñ Tubaa gi mu teg ko ci loxol Seex Ibra Faal ñun ñëpp ñu maase ci jëfe ko rek muy waa réew mii ak waa bitim réew fépp fi am murit nekk te yaakaar sëriñ Touba war may dëkk bii dégg nga ba tàyyi sëñ bi di ko soññee ni war nan wormaal barab bii wormaal njabootu sëriñ Touba gi kon ndigal jug na Baay Faal fu am murit nekk na nga xam ni soo fa nekkee te nekk woo fa baatu ndigal bii ñu digle ñaawal njortu ci ni ci sa kaw lañ jëm si ñun Baay Faal yi nee li sëñ bëgg daal dina am baa di nga génn dëkk yow mi koy def kon ndigal laa ngoog eh, sëñ Fallou nag lool yi mu wax da eh, damay soññ saa bopp di soññ murit yëpp kenn ba na génn fii si nun deew sa yoonu bopp nun ñëpp dañoo tënku si ndigal loolu sëriñ Fallu wax sëriñ Fallu dina toog wax nu yoon wi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng tànnal nu ngir nu aw si nii nga xam ne noonu la nu sëriñ bi digal bu nu bàyyi koo fii kenn ku ne la nga jële fii na ko téye te déglu sëriñ bi ba mu jox nu ndigal walis nuy génn di def lu wuuteeg li nu sëriñ bi digal loolu laa bëggoon ñun ñëpp nu xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi na ñëpp tàllal te déglu sëriñ bi mi ngi ñaan